nuyu nañ leen ziar leen ñi ñuy suivre ci 4appuis partout dans le monde waa France waa États-Unis Espagne Maroc Gambie fu Sénégal nekk di suivre 4appuis nuyu leen ziar la tey ñu ngi fii Mbour fekk si fii benn champion ñu gën ko xam ci Paul Maurice vraiment def lu nekk si lamb ñu ngi gënuñ ko gis torom na ci lamb waaye taxul ba léegi amateur yi fàtte ko woon ndax euh, vraiment marqué na traçam bu baax a baax si làmb ci dugg seem ci làmb ci bëreem ci xeex si lépp macha allah Paul Maurice ñu lay nuyu di la ziar di ñëpp. ñu dugg si waxtaan maa ngi lay fay yëpp waaw di la dalal jàmm daal sama waay. Mm-hmm. Mm-hmm. ok am na solo Paul su ma la newoon nga présenté wu lan ngay wax fan nga juddoo fan nga yaro ak loolu dugal si lamb waaw dama lay wax ne boo ma ne présenté wul dama lay ne man maa ngi euh, tudd euh, Paul Maurice euh, maa ngi dëkk ci benn village bu ñuy wax Bicol à quelques kilomètres de Fatick fa laa juddoo yaro falaa màggee aussi waaw. Paul jàng na école wala jàngul école. waaw ba ba niveau nga bon dem naa ba am BFM. ba am BFM. Mm. macha allah. waaw. lan moo la dugal ci làmb. bon au fait euh, doo mën a wax sax ni. Mhm. lii moom moo tax a dugg ci làmb. bon de toutes les façons daal xam naa ni daal dem na daal ba jot rek ñu sentir ko. waaw daal di def naturellement comme ça waaw. mais fan la jaar xanaa dina jaar fenn nga gis am am ku dëkk benn champion bu dëkkoon seen koñ. di bëri wala koo gis waaw dëgg la dëgg nag maa ngi jàng fii ni Mbour. collège Saint-Esprit waaw amoon na euh, suñu suñu village amoon na euh, suma benn grand bu doon bëri tudd Eli. waaw naa wax ne nag kooku nag mooy sama idol mooy sama star man <laughs> daanaka gannaaw yàlla daal kooku sax ci kooku la ñu roy tey ba bëre waaw. moom mbër la woon. waaw mbër la waaw bu mag sax. Mhm. d'habitude damay wax ne malheureusement mbëri yegg si wuñ mbëri yéen ñi xamuñ leen xamu leen mbëri waaw kooku ndaanaan bu mag la ndeysaan waaw. ci moom daal nga gis ci moom nga jaaree ba bëgg lamb waaw ba bëgg làmb. waaw mhm. aussi vraiment jamono yi may jàng di def ay cinquième yooyu Mbour collège collège Saint-Esprit boobu Bombardier mu ngi tëgg euh, mbapatam euh, Mbour Château bi jamono yooyu maa ngi bindu Jordan dama dama watu woon nal di bindu Jordan. d'ailleurs sax defe naa Jordan bi fa la fa la ko gars yi jëlee di ko bindu léegi comprendre nga waaw Bombardier da doon tëdd mbapat a chaque fois suñu euh, suñu sama ak sama gars yi su wàccoon école yenn saa daal sama gars yi ñoo fekk si ma suñu kër ay 11h fekk nag sama papa daf ma doon ay ay génn affaire yooyu mais buñ bàyyi ba ay 11h ci guddi ñëw fëgg ma ma yeewu tëb miir acca ñu dem mbapatu Bombardier fa lañ commencé waaw. noonu noonu daal waaw. bombardier bii nekk Mbour. bombardier waaw. bu château d'eau bi waaw. bu mm. château d'eau waaw. ci noonu laa nga nekk si mbapat yi. waaw ci lañ nekk commencé bëre mbapatu bombardier xam nga ñu daje foofu nag ay champion yu mag yi fa nekkoon. waaw di di di di jonganteeg ñoom chaque chaque samedi. waaw be un jour bombardier jëlee na ma fii sax yóbbu moom mbapatu lamsaar mbapatu mag sa mbergaan boobu ma ma nekk tout tànk boobu maa ngi jàng tamit dañ nañ fa benn week-end après jàll Grand Yoff ñi bisiwaat Mbour ainsi de suite Bombardier aussi bu amee combat ñu daal di bokk ci booy yi nga xam ne dañ koy jàppale ci ay contact affaire yooyu noonu noonu noonu quoi waaw. Bokar bi ban champion bu nekk ci lamb bi tey jii di ràññee ci lamb ji nga nga dajal mbapat. fi mu nekk nii nii nii. lamb lamb lamb lamb lan bëre dóor wala simple. bëre door bi waaw. non même ci bëre simple bi sax. amul amul amul. waaw parce que déjà champion yi nga xam ne jaar nañ ci bëre simple nekk ndaanaan tey bon naa ne ñi si réussir ci bëre dóor mooy par exemple Yékini Yékini nag tombé wuñ ñoon sax ñun moom ci ci télévision rek lañ ko xame boobu ay tout tànk lañ bi muy bëre mbapat bon à part Yékini am na ay mbër yoo xam ne dégg nañ leen rek ay ñoom Manga ñoom Ibou Diop ngi ci bon yeneen gars yi quoi mais ñooñu vraiment tombé wuñ waaw ñooñu vraiment seetawuñ seetaanuñ sax am na ñenn ñoo xam ne sax fàttaliku ñoom seen bëre simple waaw waaw. léegi bu ñu ñëwaatee sa sa palmarès ñaata combat nga bëri sa sa sa carrière. non honnêtement sax xaw ma sax ñaata combat laa bëri parce que. Mhm. sama carrière bëre dóor def de di échec. Ah, man dafa échec. waaw sama carrière bëre dóor échec la. lu tax lu tax nga dafa échec fi ma séntu woon yegg ak fi ma bëggoon yóbu làmb. Hmm? ak fi ma yem. vraiment échec bu doy la te xam naa ni échec la ñi ma xam jege ma xam nañ ne damaa échec aussi bon damaa échec d'accord mais aussi làmb aussi échec na tu comprends parce que gëmoon naa ni tey làmb dema ko waroon yóbbu ci beneen niveau instant yi waru doonoo ñu wax làmb Sénégal man di nekkoon sama bopp ma bëggoon def mooy jël làmb tey yóbbu ko au niveau international you know tey dafa waroon fekk tey tey tey làmb ji gaañ ñu koy jaay ci Canal Plus ak pour nga seetaan ko tey partout ci monde bi man foofu moo doon sama objectif mais malheureusement xëy na noonu la quoi waaw. yaa ko wax léegi yàmbu làmb da nga bëggoon ñëw yóbbu am am niveau boo ko yóbbu ma daan seetlu boo dugg si làmb façon bi façon bi nga naan duggee sër bi nga noon takk ak poudre bi nga naan diwoo kon loolu ci loolu la ci loolu ci loolu la ko si jublu woon maanaam yóbbu làmb fu sori. non ça euh, veut dire bon ba raconter la benn anecdote suñu suñu kalaf bi. Hmm. bon à chaque fois man yàlla dafa dogal dama am inspiration bon man sax du bëgg a wax man parce que ñoo yaree. simplicité modestie tu comprends ba tax na ñun du ñu wax du ñu bëgg a wax ne man tu vois donc euh, kii euh, mais ci classe boobu amoon nañ ñu programme ci créé ci ci ci ci ci ci créé chorégraphie parce que làmb na xam nga du ñëw rek xam nga bëreek yooyu. bëre kese. waaw bëre bi sax daanaka loolu fini fini fi fi fin la rek mais li tax ñuy wax làmbu du loolu. donc ci chorégraphie bon ci spectacle ci euh, vraiment fi ñu bëggoon làmb yóbbu lamb daal kooku il fallait lekk rek ñu réussir loolu pour mu ngeen mën a xam lan la woon mais nañ benn moment nag jaratuñu ko. waaw li tax mooy. di mhm. tax du la ko jaral. bon boo demee tey par exemple yàlla ko dogal say morom tey egg yenn niveau yow eggoo foofu te xam mu wóor leen du talent du talent bi moo manqué. waaw mu wóor leen sax xëy na sax yenn sax wax mais nañ bàyyi noonu rek parce que nga xam ne ñoom. ah fi nga jaar amaana sax yow ñi fa ñi fa yegg tey jaaruñ fa yow aussi da gëm yàlla rek nga xam ne peut yàlla fii la newoon nii ne wala war sa sa wërsëg fii la yem ci loolu nga topp leneen quoi. mais vraiment jàpp naa ni. Mm-hmm. làmb ci boppam aussi dafa échec. Mm-hmm. waaw échec boobu parce que bu amee échec dina am lu ko waral dafa perte du moins perte la ci làmb suñu échec ci làmb. perte la ci làmb ma rek ci fi ci làmb perte la ci làmb en même temps. waaw. lamb ñàkk élément bu mel ne yow loolu perte pertement lamb la léegi échec boobu échec bu amee parce que il faut mu am cause maanaam da nga am blessure la wala wala wala da nga dem ba moyen manqué moyen wala côté mystique la wala lu waral échec bi pour yow. donc échec bi euh, li ko waral nag dafa bari parce que nit ki nag Youssou Ndour da ko woy nit ki nu muy gën di nu muy gën di màggee nooy gën di dem saxel xel gën di ñor ngay daal di gis li nga xam ne gisoo ko woon au fur et à mesure say at avancer tu mais tey si c'était à refaire si c'était à refaire. am na erreur yu bëri yoo xam ne def nga ko doo ko def tu vu bon du ma wax nag ay côté mystique parce que man li ma gëm gëm na peut-être loolu néew ma loolu amul. mais li ma gëm d'abord mooy euh, am na sama benn euh, copain tubaab. à chaque fois def may ne Paul malheureusement dama ko xam tardivement daf may wax ne performance est égale environ génétiquement d'abord. génétiquement nit ki. Mhm. bu fekkee yow da nga juddoo ci famille boo xamante ne ñoom sport dañoo xam sport wala boog sport dafa ne. plus environnement. environnement mooy yow dëkkuwaay bi fi dëkkuwaay bi fi ngay tëddee looy lekk ak yooyu yëpp ci environnement la bokk. yaa ngi dégg mhm. waaw waaw loolu mooy sa environnement. plus sport maanaam sport bi aussi ni ngay entraîner ak nan ngay kii yooyu bu bu bu condition réussir rek formo forcément performance dafa war am. donc. muy génétique eh, waaw génétique muy génétique famille bi. <laughs> waaw. environnement dëkkuwaay bi. waaw ak tamit entraînement sport bi entraînement bi. donc loolu yëpp yàlla nag. mooy performance loolu yëpp. Mhm. nekk na si ñun. nekkoon na si ñun. mais xëy na rek am ay détails yoo xamante ni peut-être côté alimentation sax surtout. parce que xam na ni ñi léegi mbër boo gis mu ñàkk fii dara gi moom mu ngoy teg mooy ci côté sëriñ. moi non gaw ma loolu. man surtout dama ne côté alimentation am na foo xam ne def naa fa ay failles. moo ma porté sax projet di si sama projet bëre door waaw. ma ma regretté ko nag lool parce que xam naa li na ci man. <laughs> yaa ngi ban da nga da nga nekkoon ab da da nga jël loo warul woon jël. Eh, wala exactement c'est auto alimentation c'est-à-dire pas jamais bon xam nga ñun du ñu jël ay anabolisant wala ay ay ay protéines ak yu kenn xamul non. c'est parce que tey booy sport am na aliment yoo xam ne war nga koo moytu. waroo koo waroo koo lekk am na noo war di lekke war na noo war di nelawee am na noo war di def donc yooyu yëpp. benn élément bu bu bu kii rek moom ma ci métti. parce que am na façon alimentation boo xam ne maa ngi ko doon alimenté woo. maanaam maa ngi ko doon jël bi may euh, bi ma egsi ci bëre door bi surtout laa commencé jël loolu. mais vraiment je sais après laa soog a comprendre ne. dana def baisse de forme. voilà dafa yàq sama forme dafa yàq aussi sama vivacité. Mhm. dafa yàq sama puissance. Mhm. ba loolu benn animal la est-ce que tey doo ko wax pour que tey mbër yi nga xam ne ñu ngi am na yoo xam ne aussi. ma ci tiiree ay leçons parce que am na ñu nekk ci marché bi di commercialiser di liggéey seen liggéey am na yooy wax tey peut-être. mais nga juñu rek ba nga bañ a wax na sax yàqal yooyu mais xam nga képp koo xam ne da nga nekk ci mbir. Mhm. na la jaral. njàng dafa am solo. t'as vu man si c'était à refaire damay am un diététicien koo xam tik lay def maanaam alimentation la jàng dama koy teg suma wet di ko fay lekkal li moytul lii. amal entraîneur mu lay entraîné entraîné parce que mbër yu bëri seen na fi entraînement moo ko yàq maanaam dañuy yàq rek dañuy jonkan rek yàq saison u yàq loolu ne parce que yaa ngi foog ne yaa ngi defar au contraire yaa ngi yàq yooyu ci ci bokk ñàkk encadrement ñàkk encadrement hmm. ñoo xam ne man encadrement tu as trouvé le juste mot waaye kon daal bu amul message booy lancé mooy mbër yi nañu xoolaat seen côté côté lekk bi exactement ñu koy côté lekk bi parce que loolu bokk na si li échec sa carrière. exactement bi ma ñëw bi ma ñëwee mhm. parce que bi may nekk ba di bëre mbapat. waaw sama alimentation li ci ëppoon mooy cere ak jën nag. cere ak jën. te cere jën bi lu ma koy def sax mooy baxal siim. dañ koy wax da ngay baxal yàpp <laughs> nga baal ma quoi da ngay baxal siim cere ji rek aywa cere bi day am laalo laalo nguy dafa ma publicité. mais xam nañ laalo dafa bëri da am am am na am na kii nu mu tuddooti euh, bëri na calcium. waaw laalo waaw. waaw te xam nga calcium nag. c'est important. ci yax ci yax ak ci mm. muscle. macha allah moo moo lay yow nga nga am équilibre dox yëpp yëpp yëpp calcium boobu la ah donc yooyu guy laalo nguy bi da koo bëri jën bi bëri ko. malheureusement am na ay aliment yoo xam ne nag dañuy yàq nit xamuñu ko dañ koy utiliser. seen mais cere jën bi moom baax na. ak laalo beeg yooyu ak laalo nguy waxuma waxuma cere jën ba cere ak laalo nguy. Hmm. waaw xam naa ni baax na. baax na <laughs> am na solo.